ayen bako julit ñi ngi dund ay fan yo xamne suñu borom mi ngi ñu jox ben exemple alquran ma façon bu ne dóor na ko ci wa laqad darabna fi hadha alquran min kulli masal misal bu ne yàlla dóoral nañu ko ci te boo demee ci tubaab yi am lu ñuy wax moy un bon schéma vaut mieux qu'un discours lolo tax aduna ba aduna jeex yéen ñi dajju ci jakk ji ku nekk ci kër la jëm suñu borom won ñu ben exemple kërub julit naka la wara mel mbokk bu kër yi baaxee dëkk bi baax bu dëkk bi baaxee réew mu baax loolu tax suñu borom jox ñu benn misaal benn baay bu baaxee ngi nii di Ibrahim alayhi salaam suñu borom def ko suñu royukaay kan mooy Ibrahim Ibrahim mooy ki nga xam ne moo jëm ci boroomam gàddaay baayam gàddaay xeetam jox léppam yàlla jalla waala ba baay yàlla nattoo ko benn doom la am ci kaw suuf yàlla na ko demal nga rendi ko mu nangoo rendi doom bi ci kanamu ci ci kanamu yàlla lu jiitu loolu mu nangoo woon a jël doomam ak soxnaam yóbbu ci désert bu kenn nekkul kooku mi ngi jàngal père de famille yëpp ngal la waay bu la yàlla dénkee njaboot njaboot googu bu ca xool say intérêt bu ca xool seen bëgg-bëgg xool ci lan mooy ngërëmal yàlla jalla waala li ci des si yónni wu ci suñu borom yàlla bu ne woon rendi leen sax da ngay xëy rendi leen ngërëmal yàlla rek ngay seet ci ñoom loolee mbokk di misaal bu mag mu buy wane jébbalu boo xam ne nii suñu borom yàlla nee na ay yéen jullit nii maa ngi leen teg ci yoonu Ibrahim moo leen tudd woon ñu jébbalu nga la waay jébbalu leen yàlla mbokk ko jébbalul yàlla mooy ki xam ne bakkanam bi moomu ko amul droit di ko ci lenn loo xam ne dafa neex yàlla alalam ji moomu ko amul droit di dépenser benn dërëm lu dul fi neex yàlla njabootam ji moomu ko amul droit di leen engagé ci lenn lu dul neex yàlla waaye tamit famille bu may kanu mooy soxnam su baax sa Haajara jigéen boobu jàngal mboolem mi jigéenu jullit ba ilaa yu mi diin nekkati kat jigéen daa war a xam ne moom it jaamu yàlla la lam war a sakk mooy ngërëmal yàlla keroog ba ko Ibrahima jëlee ak doomam gi ndaw ban dëkk la ko yóbbu da ko yóbbu dëkk yu sori laa da koo yóbbu ci désert bu kenn nekkul woon ko gannaaw di dem yoonam Haajara na ko Ibrahima fii nga ñuy bàyyi Ibrahima continué dem bàyyi woon leen gannaaw. ba mu ko ko laajoo ca ñetteel ba mu ne ko allahu amaraka bi haza waaye ibrahima lii nga def yàlla la ko sant mu ne ko ah, kay yàlla ko sant mu ne ko kon demal fa la ñuy day yo demal yàlla du ñu seetaan mbokk kii mooy jigéenu jullit mooy déggal borom këram ci li neex yàlla jalla wa ala ay yow jigéenu jullit xamal ne ki nga war a gën a déggal ci kaw suuf mooy sa borom kër soo bëggee teraanga adduna ak teraanga àllaaxira xamal ne ka nga war a gën a jubóol ka nga war a gën a déggal mooy sa borom kër waaye nag déggal ba ci kaw lan allahu abaraka ndax lii yàlla la ko digal mooy dañuy topp borom kër yi ci li neex yàlla heure bu la sa borom kër sa baay sa directeur de service ku mën a doon sante loo xam ne du digalu yàlla amoo droit di ko topp ci loolu loolee mbokk soxna sa baax soosu moo nu jural doom ju baax bi nga xam ne mooy nekk exemple jeunesse su adduna bi ba ila yu mu di Ismaayil alayhi salaam ba mu demee ba nga xamee ne ràññee na ma majeur na suñu borom yàlla natt ko natt boo xam ne mosu koo nattu kenn avant moom ca moo demel Ibrahima baayam ñëw na ne ko ay sama doom sama borom day nee na naa la rendi mu ne ko ay sama baay defal li la yàlla sant sa tajudi nii insha allahu min as-sabirin defal li la yàlla sant da nga fekk ci ñuy mun na am yow jeune jullit yow jàmbaar bi. yow mi xëy na da ngay jaay sa bakkan na am loolu day lu màgg la waaye nag bakkan bokk loo koy jaayee looy jaayee sa bakkan nga la waaye heure boo déggee ne da ngay jaay sa bakkan na doon loo xam ne yëkkati kaddu gi yàlla la na doon loo xam ne yëkkati ak keb yàlla la na doon loo xam ne day maasale lépp loo xam ne daa safaanoo ak ngërëmal yàlla waaye ndax da ngay jaay sa bakkan ngir politique jaay sa bakkan ngir syndicat jaay sa bakkan ngir sport mbokk bakkan gën naa cher loolu bakkan diina dong moo tax ñu war koo jaay ngërëmal yàlla moo dong moo tax ñu war koo jaay di takkuwuna kalimatullahi hiya al-ulya ngiree kaddu yàlla jëm kaw Ismaïla lii la jàngal mboolem la jeunesse ngeen xam ne it mbokk dund gi la nga xam ne moo ci résultat bi gën a mag du dajale ay diplôme du dajale alal du dajale ay nguur waaye li si gën a mag mooy am ngërëmal yàlla looloo tax Ismaïl ci fleur de la jeunesse bàyyam ñëw na ko dama lay rendi te bàyyam bi mu koy wax loolu jege na téeméeri at Ibrahima jege na téeméeri at Ibrahima am à peine ay vingt ans mu ne ko dama lay rendi mu ne ko woon bàyyi booy rendi rendil sa bopp waaye daa gis ne la xam ne mooy jubluwaayam ci kaw suuf jeune ou màgget mooy fexe ba am ngërëmal yàlla maa daama liy ndigalu yàlla bu dee dee dee ci ngërëmal yàlla loolee li ci des topp teewoo ko ngal la waaye def leen xel loolu yéen jeunesse bi seen yóbbal mooy na ngeen màggal seen borom bu kenn nekk seen kilifa ku gën a màgg ku dul seen borom bu leen nekk di déglu benn wax bu safaanoog seen ngërëmal borom loolu mbokk mooy micro société boobu famille boobu nga xam ne ñépp mën nañ caa jël seen i misaal mooy baay ya mooy yaay ya mooy la nga xam ne mooy njaboot ga nga xam na ñoo ko cosaanoo looloo tax ba léegi yéen a ngi dem di rendi seeni xar suñu borom yàlla mën a soxluwuma yàpp bi ngeen di rendi soxluwuma deret bi ma rendi lan laa soxla taqwa minkum mooy waa kër gépp buñ gisee xar yi ñu rendi loolee fàttali leen keroog ba Ibrahima tëralee a bëgg koo rendi suñu borom yàlla ne ko dëggal nga jëf ji baal naa la demal jël am xar rendi ko ngir lan ngiree kon ngay fàttaliku yow yaay yow doom yéen ñi nekk ñëpp ci kër gi heure bu ñu tëralee xar yi ngeen xam ne li mooy islaam dañoo war a jébbalul yàlla jalla waala ci li ñu neex ak li ñu naqari ca xam ne kat lii mooy la nga xam ne suñu teraanga adduna nekk suñu teraanga alaxira nekk keroog bi Ismaayila jébbalee yàlla Ibrahima jébbalul yàlla lan la ci yàlla teg. mooy yàlla may leen teraanga àdduna may leen teraanga alaxira Ibrahima ba mu faatu léegi ëpp na 4 millions waaye xoolal ba tey ji rek plus de 2 millions de personnes ni nga jóge plus de 160 pays de par le monde di màggal fa nga xam ne fa la Ibrahima jaaroon lan moo may loolu mooy jébbalul borom bi jalla waala ñaata milliards de moutons ba ibrahim faatoo ba léegi la ñu rey ci kaw suuf. ana loolee taraanga boobu fan la jógee mi ngi jóge ci Ismaïla alayhi salaam naka noonu it ndawal bulit heure boo yégee ne yaa ngi sa yoonu borom heure boo yégee ne sa borom yàlla kontaan na ci yow xamal ne réussir nga ci àdduna réussir nga ci àllaaxira même boo amul benn diplôme même boo amul benn dërëm waaye loo mën a am ci àdduna ci amoo ngërëmal yàlla perte nga àdduna perte nga àllaaxira mbokk lii mooy it lii la ñuy fàttali mooy dellu ci borom bi màggal borom bi waaye ñu xam ne li ñuy teqale du dara. mbokk li ñuy tekkale du dara muy àdduna nañu ànd dellu ci yàlla yàlla moomu mooy suñu borom benn téere la ñu wàcceel benn yonent ci lañuy wàcceel benn xibla la ñuy la ñu joxoñ ñëpp ñu ànd ci ñu war a nekk bo bokk ndey bokk bàyyi bokk sëriñ muy sëriñ ba mooy kan yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ànd jaamu yàlla nii la yàlla gërëme ci ñun lii de buñ ko defee suñu borom yàlla ci baaxam ak dana ñu wàcceel jàmm bokk lépp loo xamee ne nii tey jii de ñu ngi koy dund suñu réew tey jafe-jafe yàlla moo ko gën a xam waaye ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla teg ñu ko ci jàmm